salaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal di nuyu fans Boy Niang yëpp ak ñi may bëggee di nuyu Mounaté di may siyaar yëpp tey dama ñëw seet sama papa yaa seet sama papa ñëw suma kër sama papa si la jar deuxième poste di bu baax a baax yaa ngi di wax suma ay fans ak suma ay am di jàmm ak ñi xam dañu bëgg Boy Niang ñu jàppale ma sama papa bii ñu jàppale ma ko bu baax ñu téye ko yaa ngi dégg ragal féete day xañ dama dama ñëw fii te doom laa ci kër gi yaa ngi maa koy jàppale di ko wax ne jàppale bi ma koy jàppale ak bi ko sama fans di jàppale gisagu ko incha allah élection yi ñu jëm. 2019 la kii demee premier tour incha allah dina xam ni ko. jàppale na président Macky Sall ñu koy sant di wax président Macky Sall maanaam waxuma la waxuma la Thiès sax waaw da parce que dañ ne Siré ngi Thiès man la Siré ngi Sénégal gépp waxuma la Thiès sax waaye Sénégal am na fi am na fi benn élément boo xamante ni bu ci amee ñaar incha allah bu ma la kii sax may premier tour incha allah suñu borom na ko may tam lu seen wecc di la sant di la gërëm baax yaa ngi taxaw jeunesse bi yaa ngi taxaw waa Thiès yaa ngi taxaw ñëpp ñu bëgg mag yi ñëpp ñu bëgg Sénégal maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax. jërëjëf yal na yal na ko yàlla may ndam may ko mag. amiin jërëjëf amiin amiin amiin amiin. Cheikh Nodou Ba papa wa sànni ci kàddu. Ah, jërëjëf kontaan naa. booy ñaa sama doom la ni mu ko waxee. doom la ci kër gi tey ma kontaan rawatina mu ànd ak waajuram ñëw ko ci man woo lañu nga xamante li mu wax yëpp dëgg hmm. maa koy ñaan nag comme ni ma ko waxee. su hmm. muy déglu élection yu am importance ci man. Hmm. man ku ma xam xam nga président Sall laay yëngu. vraiment képp kuy fansam kuy nekk booy ñaan nga ñëw jàppale ma ci loolu. pour ñun ñëpp ñu ànd réélire le président Macky Sall dès le premier tour en deux mille dix neuf. incha allah feete ko incha allah. bu neexee yàlla gars yi ñaanal nag. sama doom booy ñaan am ndam lu rëy. ci kanamu Sa Thiès. ci combat bi mu dëgmal. ñu feete waat incha allah ci barke Seydina Mohamed. incha allah rek premier tour nag